dañu lay jox heure boo xam ne moom nga war a décoller nag bu heure ba jotee dañ si toftalaat ay heure yu baree baree bari yéexaange goo xam ne jamono ji bëri nay client yoo xam ne mënutuñ koo nangoo journal bi nee nag li nga xam ne moo jëm ci wàllum guichet enregistrement bi foofee tamit yàgg gi nga xam ne moom lay yàgg wàllum sàcc gi nga xam ne moo am ci Air Sénégal Air Sénégal sàcc ay bagage daf sa am jamono ji nag am na ay client yoo xam ne mer nañ ba maara a assurance qualité de service bi amul lenn loo xam ne lu ci baax la a kaay gi en tout cas li am ba des sall mooy compagnie aérienne bii di Air Sénégal gars yi ngàññi nañ ko ba seen xol sedd yéen a kaay gi ne enquête xëy di ñu xibaar naan ñu société bi di Sapco Sénégal jamono ji ca fayit la jëma ndax nag am na lu toll ci juróomi milliards yoo xam ne perte la yéen a kaay gi du l'observateur nee na réeroo amul ñàkk waxtaan moo am journal bi nee na retrouvaille am na diggante Khadim Baloka Afrique ak baayam jii Ba journal bi nee na giita ngaas nga xam ne moo amoon ci diggante Amadou Ba ak doomam jii di Khadim neexoon na lool waaye nag jamono ji juboo am na sax xaadim ba ni na koy nekk ci wetu waajuram jël lépp nag jox ko ko daal di nag nekk ci wetam di xeex yéen a kaay gi de la sa xëy dañu xibaar naan ñu Serigne Bassirou Gueye mi nga xam ne moo fi nekkoon procureur de la République ni démb nag la def passation de service ak Amady Diouf mi nga xam ne moo ko fa wutu moom Serigne Bass Gueye ni ki démb nag daan nay wax ne erreur ak njombe nga xam ne maanaam def na ko loolee lépp nag jàpp na ne Amady Diouf mi ñi ko wuutu maanaam dina si andi nag ak jubbante yéen a kaay gi di réew mi ko dëjee nee ñaari inspecteur trésor public yi nga xam xamante ni ñoom la ñuy joxaat bi baaraamu tuuma ci détournement boo xam ne ëpp na ñeenti milliards journal bi nee na ñaari inspecteur yooyu nag ni ki démb jël nañu leen a jàllale nañ leen sa kasu bu rëbës kenn ki di El Hadji Abdou Aziz Diop yéen a kaay gi di Mohamed Ndiaye journal bi nag nee bëri na daal ay kilifa yoo xam ne nag bëggoon a jël yóbbu leen sa kasu ba yéen a kaay gi nga xam ne moom lañ dénk wàllu wàllum yoon ci réew mi wax na ci scandale yi nga xam ne am na ci réew mi daan nay wax ne ko traité correctement amul benn parparloo boo xam ne dinañu na na xel yi daal moo ko jiite moom nag yëkkati na ay nag jamono ji Macky Sall ci boppam nag moo war a def déclaration wax na nag du nekk candidat ci élection présidentielle bu ko defee jàmm ne ñooy yéen a kaay gi di Walf Fadjri xëy di ñu xibaar naan moo ne day defoon nañu fi ab dialogue politique dialogue politique boobee nag dafa mel ni amul benn njëriñ ndax jamono ji tension pré-électorale bi ma ngi mel ni tulleeg màll ci réew mi yéen a kaay gi de la témoin xëy di ñu xibaar naa ñu nag noëlu bren bi boo muy tuulee catholique nag maanaam du neex si ñoom benn yoon a ndax nag réew mi toj crise bi nga xam ne moo am ci réew mi jégg na dayo ak nag njëg yi nga xamante ni yokk na ba maara détaali loole nag ana nan la catholique yi nag di def ak moom waaye nag pork si boppam mbaam jamono ji maanaam dafa jafe lool lool journal bi nee na bëri na nag ay njaboot yoo xam ne crise économique bi moo leen moo fa jaar moo tax journal bi di la témoigner nee na ren ji Noël bu du neex ci catholique yi yéene kaay gi di réew mi quotidien xëy diñu xibaar naan ñu Ismaïla Sall doomu Khalifa Sall la boo xam ne am na ñeen fukki ak benn moom nag ni démb àtte nañu ko ca tribunalum Dakar ci lu jëm ci wàllum escroquerie yi dafa am benn doomu réewum Italie boo xam ne moo ko joxoon xaalisam ngir nag mu jëndal ko ci ab terrain ngir nag tabax fa benn usine café nee na police def na opération Colobane Mermoz Védène Cambérène daal di teg loxo ay faux yoo xam ne bi ñu ko xayma toll na ci ñetti milliards yéen a kaay gi de Les Échos nee na en tout cas li am ba desal coronavirus bi Sénégal yi nag ñëkk wuñu ji Sénégal yi dañoo lànk kandaare am na ñoo xam ne dañoo lànk bañ a ñàkk moo tax nag jamono ji bëri na ay ñàkk yoo xam ne maanaam périmé na yàqu na sànni nañu ko nag te ñàkk yooyee bi ñu ko xayma toll na ci trois milliards maanaam vingt-huit mille sept cent vingt-quatre vaccin yoo xam ne sànni nañ ko dafa périmé Sénégal yi ñoo ñëkkuwu la yéen a